lii lañ doon saa ñu wax la ko. gëm nañ mhm. seen bopp daal. Mhm. macha allah nangu nañoo liggéey am na jom. Mhm. mais ñeeño ci biir ci biir ñeeñoo. est-ce que ñoom seen biir war nañu xeebante maanaam da ci am ñu ci gën a kawe am ñu ci gën a suufee. ndax boo xoolee série bi ñuy seetaan euh, à travers Sumbulu. mi ngi wax que ni Euh, bàyyi ko mu tëdd ndax yaa ko tuddee ñeeño mhm. te ñeeño da ngeen di faral di wax tëgg dawul mbaar mhm. maanaam dañu tëdd ba mu naaj mhm. ñu daal di jóg jëm ca mbaar ma maanaam daal teel a yeewu nekkul ci ñoom boo gisee sax mu ngi wax naan jom beeg yooyu est-ce tey loolu ah, da nga koy puuf ah foofu juum nañ ñeeño moom bu fekkente ne dafa am bu busiéwam di liggéey di tëgg jëlay employé am ñu koy liggéeyal su ko neexee sañ naa tëdd bam naaj parce que am nañu mu bàyyi place am soo duggoon marché Zeng tey jii soo déparé waaw Choumi TV mi leen nuyu. mais sincèrement nag ñu ci bëri ci ni amoon ci chaîne bi su ma juumul bërki dem rek gis ngeen ni dugal naa benn vidéo bu jëm ci série bu bees bi nga xamante ne nii. maison de production bu mag boobu ñuy wax waa Even Prod ñoom ñoo ko tourné. waaw jour boobu noonu ñëwoon naa pour mentionné lii jour boobu noonu ñëwoon naa pour waxtaan ci. mais dama leen bëgg wax rek ne sama gaay yi. lii nii film la rek. ñu film ñun ñëpp xam nañ sama gars yi sum ulu bàcc li du nit ku rasis sum ulu bàcc li du nit koo xam te ne dafay manqué kenn respect mais sincèrement dama bëgg yéen ñi seetaan ngeen xam ne journaliste bi dafa jublu tout simplement pour ruube mais ñëwul sax pour interview quoi sincèrement. Ahmed Guissé. Mm-hmm. su ko neexee mën naa tëdd bam naaj. parce que mm-hmm. am na ñu ko fay xaar mu toog lijjanti boppam. ku sa xel dal nga am ñoo bàyyi sa ginnaaw. am nga mm-hmm. sañ-sañu nga nelaw. mais ku am jom yoroo dara. yaakaaruma ne ah xanaa xel mu gàtt mooy tax nga tëdd di nelaw waaye daal xam naa ne sooy xool fu baax bëgguñu xool la fa war ngaa nangoo teel a jóg te am jom. Mhm. man sama gis-gis man ñeeño man. Mhm. man li ma gis. Mhm. gise naa ko noonu. mais ñoom seen biir ñoom seen biir ñeeño dafa am ñu ci gën a kawante wala dafa am ñu ci gën a suufante maanaam ci ay ask ci biir ñeeño dafa am ay askan yu gën a kawante ak yu gën a suufante. waaw xam nga am am moom yàlla moo koy maye. am yàlla mooy maye am man ngaa nekk ñeeño te yàlla tuddul ci nga am. doo am parce que yàlla mooy maye te tànk nag yaa ngi dund nag di gëm sa bopp dara weesu ci doomu aadama njaay mm. waaye daal ñeeño bëggam boppam dëgg nangoo liggéey xee dara lu may teg ko ci yoon di liggéey ah man ngaa ris ba ku la gis du la yërëm mm-hmm. loolu moom am na ci ñeeño mm-hmm. waaw gis ngeen lii mu wax nii man chemise sincèrement dama koy confirmer quoi waaw ñu bëri ci ñu sénégalais bu ñu neexee ñu génn ñu film naan dañuy jéem a xeet benn askan mais te ci sincèrement sama gars yi boo leen duggee biir gis nga ñii di ñeeñu ñi ñii amul kenn Sénégal ko leen ëpp teraanga Choumi TV dafa sama gaay ngeen xam loolu ñu ci bëri ci Sénégal cinquante wala soixante pour cent ñi fa am teraanga mun naa ne ñu ci bëri si ñoom ay géwél lañu war ay tëgg waaw ñii nii yéen les Sénégal ngeen gëm c'est des détails quoi binduñu ko ci benn téere binduñu ko ci alxuraan binduñu ko ci bible bi waaw mhm. côté boobu comme par exemple nga sant caam ma sant caam mhm. euh, maanaam nga am maanaam sa sant ñeeño maanaam mhm. gën a fort sama bos comme par exemple nekku ci côté xaalis sax mais ci côté géñoo maanaam ci yax bu rëy bi est-ce amante na ci biir ñeeño waaw am na ci ñeeño nag ndax ñeeño moom en général moom ci yax bu rëy luñ judd parce que seeni maam dañoo teel a génn ngeen man sincèrement man chimie lii moo may déranger quoi man ba ama déere ñu sénégalais yu fi mais ñu jéem a di suñu ay maam ko naan ay man yax bu rëy laa bokk ak non sama gaa yi lii ay détail rek lii ay détail man Choumi gëw ma ko man Choumi gëw ma ay yàq bu rëy mun naa ne borom yax bu rëy moom lenn rek laa ci gis mooy bis boo aatoo moom bis boo teewee moom da ngay gën a arrangé sax yi nekk ci biir bàmmeel rek waaw ndax ñoom borom yàq yu rëy rek la ñuy wër wëruñu borom yàq yu tuuti borom yàq yu rëy la ñuy wër gis ngeen lii sénégalais gëm man gëw ma ci juróomi dërëm. sonal ak dem Côte d'Ivoire Abidjan Bénin fu nañu jaar fa man sama papa Cheikh Fall jaar na Abidjan nekk ñooñu bala may sa ba ni mu ñibbisee tey jii ñooñu daal macha allah daal boo gëmee sa bopp moom. Mhm. defe naa ne doo ko rëccu daal ci doomu eh, eh, eh. yan façon ñeeño moo am maanaam ñeeño bu ñuy bàkkantalee nan ak nan ak nan ak nan ñeeño caam am na gise am na kase am na ku ne sa sant rek lan lay dàkkantale mhm. jum am na mhm. joxaane am na parce que ñun waa joxaaneen ñi mënuñu cee génn waa kër Iba Der Thiam ñun mënuñu cee génn parce man tey jii ba ma doon seet bu la neexee dem Kaolack seet ma fa mhm. ndax yaayu Iba Der Thiam ak sama papa ñoo bokk néegu ndey mhm. kon soo ma seeti woon Kaolack boo nee ñeeño yi sant Thiam dama cay bokk soo mhm. duggee Bambey ma bokk ci boo duggee Touba ma bokk ci foo dugg rek ci dëkk boo xam ne ay nit nga fa rek soo fa duggee ñeeñoo nga fa gëm seen bopp nag nangoo liggéey su ma xëyee daal maa ngi sama kër lijjanti sama kër mhm. mais su ma añee ba naan sama lewal ak deux mhm. lekk sama ceebu ñeeño mhm. yaakaar naa ne su ma ci tegee tuuti damay jug dóori waar parce que soo bëggee am jom bëgg a tekki dara ci réew mi soo nangoo wee liggéey defe naa daal bokk na ci ñeeño moom waaw mun naa ni yéen sax yéen rek a tekki Sénégal soo leen bëggee dégg dëgg yéen rek a tekki Sénégal yéen ñeeño yi yéen géwël yi sincèrement man su mi de li leen wax sama gars yi nit ko dindi gis ngeen cinquante wala soixante cinq pour cent des sénégalais ñu ci bëri si ñoom naa ne saawaay bu fekkente ne dañoo réussir soo xoolee seen askan ñu ci bëri si ñoom ay tëgg lañu wala ñuy ay géwal lii man ma leen ko wax soixante pour cent des sénégalais yi réussir Mm-hmm. mais est-ce que théâtre tey jii war na war na war na yee ay ay genre xeet comme par exemple mu xeeb xeet bi mm-hmm. xeeb xeet bële est-ce que loolu nit kuy théâtre tey war na ko jàllale ci télé ah am na mën na ko jàllale mm-hmm. mais nag xeebaate moo baaxul parce que àdduna moom yàlla rek mooy maye te kenn ku ci ne luy sa wërsëg bala ngaa dee di ko jot kon xeebaate baaxul parce que koo xamul fu ñu ko juree du yoon nga di ko xeeb te nit mën nga ko xeeb tey ji ndax yorul dara ëllëg yàlla may ko loo xamante ne nii yow sax da ngay njéem ci mbiru yàlla ndax yàlla moom lu ko sopp mu def ko mm-hmm. loolu moom yàlla def na ko mm-hmm. te baate moom mm-hmm. baaxul ndax yàlla moom mooy maye mën na laa xañ say suum may la teraanga joo xamante ne nii danga naan man sax lii lan la fooguma ko woon sama àdduna yàlla mooy tëddale noonu doomu adama jaay kenn du ko xeeb parce que a yem ci yàlla ku fi jóge tey jii amul bàmmeelu ñeeño amul bàmmeelu géwél ñëpp lañ boole moo tax xeebaate amul solo affaire askan yi sax bari dañ koy xas dañ koy bañ Eh, ñu ci bëri ñun les sénégalais ñun nag malheureusement ñun loolu duñ ko ay xel quoi man de chimie yi li ci jaaxal mooy musuma dem ci benn almer ba gis ñu séparé nit ñi naan ñi ñooy géwli ñi ñooy ñeeño ñi ñooy tëgg yi ñi ay wolof ñi ñooy ay séeréer ñi ñooy ay soninke musuma ko gis ñu ñëpp nu ñu deewee noonu la ñuy deewee ñun ñëpp ñun ñëpp ku ci faatu mun naa ne juróom-ñaari mètre berkaat lañ lay yóbbaaleel du ko weesu du ko yées waaye mais leen ñeeg seen caaxaan yi waay. ndax nga sëy ak ñeeño bi walla nga sëy ak géwal bi moo gën tubaab bi ndax tubaab bi xamoo fu mbokk. Mm-hmm. te géwal boo ko doon seeti tey ji laajte maamam nga xam fan la. Mm-hmm. kon xeebaate amul solo. Mm-hmm. mais tey jii nii lan moo tax ñu naan géer warut sa sëy ak ñeeño. ah xëy na seen xalaat moo toll foofu ndax am na ñoo xam ne dañ naan fanaanoo tëgg day ume am ñoo xam ne dañ naan man duma fanaani kër géer ña te loolu du dara ñëpp a yem ca yàlla. fanaanu kër tëgg day ume waa am na ñu koy wax duma fanaan ka tëgg am na ñu koy wax am ñuy wax man séquma tëgg dara duma ko may jabar xew la may ko laa séq ak moom mais yàlla mooy cërale ku ne fa nga war a bokk rek fa la la yàlla boole yàlla moo defee noonu mhm. kenn du tànn fooy juddoo mhm. ku fi ñëw rek yàlla moo xam yow fa nga war a bokk mu boole la fa Mhm. yaa ngi naan sa biir wax duma fanaan kër ñeeño daf may daf may daf may um mhm. affaire yooyu noonu mhm. est-ce que ñeeño tamit bokk na ci kuy ume ñeeño ah, ni ñu xamee riche bi seen xalaat moo toll foofu rek parce que ku nekk xëy na tamit li nga dégg wala li nga téye rek moom ngay demee waaw est-ce que mës na ci dund benn histoire boo xam daf la marqué ci côté boobu ay du ma fanaan kër tëgg du ma def kër lii moo xam ne dund nga ko ci mu metti la nga dégg ko ci sa géer man nag mosuma ko dégg nag ci sama géer mais damay ay nit di wax ne seeni géer ñoo wax

ñu yor ñu leen na loo lu nit ñi di coow man gisuma ko ñii ñoo leen ëppale fuuf billaay wallaay taalaay man gisuma leen ñuy sàcc gisuma leen ñuy fen gisuma géwél buy sàcc gisuma géwél buy fen man mos oo gis lépp lu ñu am seen àdduna mun naa ne dóor waar ko may rek loolu Mm-hmm. mais daal armeelu ñeeño moom amul fenn ak armeelu géwal ku fi gaañu tey jii amul géwal la amul ñeeño la mm-hmm. bu dee Touba nga bëggoon dañ lay yóbbu Touba bu dee Tiwaawoon nga bëggoon dañ lay yóbbu Touba foro bëgg dañ la fa yóbbu oh, ndax mm-hmm. tarixa yi ñëpp ànd Touba ak Tiwaawoon ñaseen laayeen ak tarixa yi fi nekk yëpp lu mu doon ñoom sëriñ si dañuy yëgoo kon luy problème bi dara kon ñun ñëpp benn lan ci ci ci série bi ñu ngi seetaan mu wax ni àndu nawle dafa fort maanaam tey jii nii sa moroomu ñeeño ci côté mystiquement sax mi ngi wax naan géer warta toog ci lalu ñeeño parce que loolu mooy causé sax kee bu ëmbee mën na tuur ëmb moroomam mm-hmm. est loolu am nga loo ci wax te est-ce que loolu dëgg la ah. maanaam ah, ko dund bu mel noonu te mosuma ko dégg tamit mm-hmm. mais ëmb moom léeg nga ëmb nit ki su fekkente ne seen affaire àndul nee nañ soo ëmbee toog ci lalam après da ngay avorter loolu daal moom dinaa koy dégg moom comme àndul comme nan expliquer ñu mu leen non du nekk ànd day nekk yow da ngay nekk en mm-hmm. sa morom am doom nga seetu ko bu fekkee sa deret soo ci jigee da ngay avorté. Hmm. loolu moom gis naa sama copine boo xam ne moom loolu dal na ko. Hmm. waaw yow awaay ah man loolu gëmuma ko de <laughs> non arki rasulillah ñun Sénégal ah. non ñun yenn saa ñun dañu war toog ba si yàgg sax ñu laajte est-ce que ñun on est des vrais musulmans quoi sincèrement ñun ñëpp nag séeréer beeg tukulóor beeg joolaa bi ñun ñëpp yenn saa yi dañu war a toog ba si yàgg ñuy poser question boobu ne ñun est-ce que ñun on est des vrais musulmans quoi man su mi li ma gis Sénégal gisuma ko ci beneen dëkk Afrique sincèrement quoi li ma gis moom <laughs> non booy gisuma ko fenn. Mm, nekkul téere bu ñu takk wala non nekkul moom takkul téere sax moom xamul sax ne dafa nekk en état. mais dafa am doom rek mu defee ne comme moom war na koo seeti rek mu dem seeti ko. Mm. un jour ñuy waxtaan mu di ko wax man ko man de sama yaay def ma daan wax ne ma wasin su fekkente ne yow bokkoo ci 100 pour cent da nga yónnee sa seet. su ngéntee ba bés ak dellu si ba ñu tuddal ko doomam ba pare nga doog a dugg nga xool ko mm-hmm. man daal loolu moom sama yaay daana ma wax loolu te ba mm-hmm. tey jii foofu laa teg sama tànk mm-hmm. loo doon doon ñu wax ma ko du ma tëb rek brusquement dugg sa nekk nan ngay xoolee pour dem seeti ji ko damay jënd samay la ko ne dafa am lu ma téye après waaw sincèrement nag man su mi dama gis ne li na waral loolu parce ñun ay Sénégalais ñu ci bëri si ñu dañ leen di tappal étiquette boobu noonu ñu ci bëri biir Sénégal dañ leen di accuser naan ay dañuy ume gis ngeen ni loolu moo gën a waral léegi dañu dem ba ñoom sax bu leen yëgalee yenn xew yi du ñu mën a dem quoi bu jigéen ëmbee du ñu mën a dem parce que ëmb bi tuuroo dañ leen koy jiñ. ngeen même circonstances yi nii la sénégalais di accuser ay doomu aadama dëmm ñu bëri Sénégal ñi ngi tiim ay doomu aadama di leen tamlu te billaay wallaay taalaay kenn gënu leen set ñu ci bëri Sénégal. te gis ngeen sama gaay yàlla sunu borom gis nga bépp bàkkaar boo xamante ne jëm nga ko sa digganteeg moom moom mën ëlu ko jéggal quoi mais lépp loo jëf sa diggante sa moroom gis nga bul ko jéggalul. <laughs> dinaa ñëw. Mm-hmm. après su paasee ma doog ñëw xool si parce que mm. man sama mère moom ma daan wax loolu. Mm. moo ma daan wax ne ma wasin boo ci bokkulee cent pour cent waroo ci xuus ba ci biir. parce que mm. ndogal dafa gaaw. maanaam boo nekkul mbokk bu ko jigéen wax waaw. Mm-hmm. loolu moom chaque jour daf ma ko daan wax. ma di ko bàyyi xel nag ba nii nekku fi mais ba léegi loolu dama ciy bàyyi xel. Mm-hmm. parce que ku la mag wala ku la jur dina xam loo xam ne yow xamoo ko. Mm-hmm. mais ba nii nii nii. Mm-hmm. man duñ mën a diw am na doom rek ma départ uti fa di ko seeti. dafa mel da nga ci dund lu métti. parce que fi mu ñu tegoon rek foofu lañ tegu. bu boole nag suñuy frère nag ñu baax mu leen xamal ne leen ñii seeni rakk lan. ñuy dund ak ñun dund bu rafet. ba tey jii muy rafet te dara ñaawul. ñun amuñu benn problème lu ñu soxla ñoom dañ ciy taxaw ñu ngi liggéey de. waaye lu ñu soxla rek ñoom dañ ciy taxaw. dara dundul abadan li mu doon day jeex. soo bëggee nekk ci àddina mm-hmm. dangay defar boo fekkee lu yàq rawatina ñeeñu ak géwél dëgg la toujours am na sama benn partenaire boo xam ne bu ñu toogee di waxtaan xam laa koy wax nit lu mu fekkee wut wala loo xam ne soo ko ko nettalee mu indi coow mm-hmm. kooku bëggu la parce que ku lay nettalee loo xam ne ef soo ko déggee mm-hmm. bëgg maa songu xeex wala bëggatoo maa gis loolu ku la koy nettali bokkul ci sa soppe dëgg la parce que nit du yee fitna fitna kenn du ko loo fekk amul jàmm da nga koy jéem a defar Mm-hmm. soo ko mënulee nga xam ni nga ciy taxawee ci ñaari côté yëpp di ci def lu rafet mm-hmm. bis bu ko yàlla defee rek doo ruus te doo ko rëcc mm-hmm. mais fekk diggante mu am problème chaque jour yaa ngi def loo xam ne day yokk problème loolu baaxul te yàlla rëbb na ko yee fitna fitna kenn du ko yee dul jàmm jàmm da lay gën ana ban message ngay bàyyi rek balaa ñu tëj émission bi maanaam tey jii yenn théâtrekat yi mhm. yenn ñi nekk ci réseau yi mhm. di tutal askanu euh, euh, ñeeño mhm. wala ñuy sànn yenn kàddu ñeeño wala des fois sax ñu leen non mais sincèrement nag journaliste bi non sincèrement journaliste bi seytaane na trop nag man su mi ba léegi gisuma fi benn série bu ñuy jéeman ànd dañuy tuutal benn xeet ñi dañuy tourner seen série parce que dafa benn message boo xam te ne dañ ko bëgg véhiculer dañu jublu pour yee Sénégalais yi lépp lu ñu mës a joué dafa existe biir senegal lépp lu ñu mës a tourné pourquoi mënoo luñ ci gis lu ñu jàngale ci biir mais lii mooy problème sénégalais yi gis nga ñu ci bëri si ñun nda dañuy fekk benn situation boo xamante ne mën nañ ko lijjanti de mën nañ ci wax lu rafet de mais duñ ko def ñu ci bëri si ñun dañuy jéem a indi ay séparation quoi gisuma lenn lu ñu mën a critiquer waa Evenprod ci série bi man gisuma ko dañu jublu tout simplement pour éduquer les mais film boo xamante ni mi ngi door commencé ñu ngi ci deuxième épisode ngeen bëgg génn yéen ñu bëgg leen di critiquer mais da ngeen di toog ngeen xaar nu film bi di mujjee loo leen gis dafa am un début dafa am une fin. man loolu rek laa bëgg quoi mu mais bu leen génn di accuser ay sumbulu bu leen génn di accuser maison de production jàmbur sincèrement quoi journaliste bi seytaane na trop. di xas ba ci jóge ay saaga mhm. ci ay réseaux sociaux mhm. tey ñooñu lan nga leen di wax en tant que ñeeño non loolu yeete la rek parce que dafa am loo xam ne su la ko nit dee def mhm. su fekkee borom jom nga dina yokk sa ñoom jom moo tax ñu naan noonu am na fu mbaax parce que fekkente ne yow yi newu la dara lu baax su fekkee yow nite nga di nga a teg sa tànk ci loo xamante ne nii moom du dégg dara lu mu lay reetaani man ci sama gis-gis man man boo fekkente ne da nekk dama nekk nit mhm. te yow xamoo man maay wala la ma nekk neexu la mhm. ah ma dinaa teg tànk foo xamante ne nii mhm. la ngay wax ci man doo ko gis am na solo merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal waaw Choumi TV mi ngi leen di nuyu Choumi TV mi ngi leen nuyu di leen bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam j'espère que ni vidéo bi fekk na ñëpp si ngi am mais kon ne encore une di leen rappeler ñi nga xamante ni ñu door a am na chaîne bi Choumi mi ngi leen wax rek nga leen welcome back to yéen a ma gën a xam mun naa nekk am rek ni koy faral di defee waaw yéen ñëpp sama gars yi saraan ngeen vidéo bi mu naa ne tey Choumi TV dama génnoon rek pour véhiculer message boobu dama génnoon uniquement pour wax leen Sénégal ne leen ma neexul mais man Choumi mënu ma leen comprendre quoi. ñun am seen ñu ci bëri si yéen les Sénégalais da ngeen di fekk benn situation boo xamante ne mun naa ne benn problème amu ci mais ngeen jéem ji di ko jéem a xam quoi. sincèrement nag waa Yvonne Prod man Choumi personnellement man depuis ma commencé lañ seetaan ba léegi no non mosuma gis ñu génne benn série boo xamante ne yeetewuñ lu ci bëri lu ñuy tourner au Sénégal mun naa ne c'est une réalité boo xamante ne ñun les Sénégalais dañ koy dund mais journaliste bii moom sincèrement yow seytaane nga trop sincèrement seytaane trop waaw Choumi TV nag dama génnoon sama gars yi pour wax leen dëgg ci sumbulu ñun les Sénégalais mosuñu xam sumbulu bàccale muy nit ko indiscipliné mu ñu xàmmee Soumboulou Bathily muy ni ku manqué yar ak teggin Soumboulou li c'est une femme exemplaire man chaque jour ma wax nit la koo xamante ne man su mi dama ko respecté mais lii sama gaay lii série la rek dañu jublu tout simplement pour véhiculer un message mais ci lépp loo dugg nag non du ñàkk quoi nga gis ci ay doomu aadama yoo xamante ni dañuy jéem a jaxase quoi mais sincèrement Soumboulou Bathily moom saay lii nii dafay prouver tout simplement que ni réussir nga sa ndax man film yi dama gëm ni su fekkente ne tu es un artiste mënoo tourner un film boo xamante ni nit ñi bu ñu ko seetaanee ñu gis seen bopp non sincèrement da nga war a bàyyi quoi waaw mais lii nii dafay prouver tout simplement que ni Soumboulou Bathily réussir na rôle bi nii rek lay définir. waaw Choumi TV daal en tout cas tey sama gars yi dama génn rek def reaction bi i film mi jublu woon pour wax leen ne leen sincèrement sama gars yi nañ leen jéem a di diggante yi quoi moo gën ñu jéem a séparer waaw ñun ñëpp a yam fa yàlla tëgg be géer beeg géwél yi ñun ñëpp bu ñu deeyee doo leen gis benn yoon ñu bind ni fii mooy bàmmeelu géwél fii mooy bàmmeelu géer ñun ñëpp set sept mètres percale la ñuy lëmasee yóbbu ñu suñu borom waaw Choumi TV daal dama noonu pour véhiculer message bi Choumi mi ngi leen di bëggee di leen ñaanal jàmm ak di leen jox rendez-vous ci yeneen vidéo